man nag dama ànd ak benn délégation ñu ngi ci Batoura Kat ancien ambassadeur Ana Fofana Seck mu ngi fi ak Babacar Fall dañu ñëwoon pour déglu leen parce que déglu candidat yi dafa am solo lool parce que ñoom kenn ci ñoom kenn ci ñoom le 25 mënoon naa nekk président de la république toog fi toog. Sénégal biñ ko xamee ak léegi lii musu fi am ñun rupture bi dañu gis ni c'est une rupture institutionnelle brutale et c'est une rupture institutionnelle que nous bu fekkee ni da ngay dem ba nga ne damay reporter ñii la gën a ko jëkk a concerné ñëpp waaw <laughs> ah, ñii ñoom ñii ñoom ñoom la waroon a woo wax ak ñoom déglu leen ñun ñi wax ak ñoom amul kenn ci vingt candidats yi ku d'accord ci report loolu lu leer la deusièmement mooy lu am solo mooy problème mu droit de l'homme ak liberté d'expression suba bu fekkee ne li ñuy def dañ koy def dans la paix nañ leen a bàyyi bu ñu leen a bu ñu leen a yoon dóor ay lacrymogène te kooku dañ koy wax ñi nga xam ne ñoo koy def parce que seen droit la constitutionnel boo xam ne moom lañ war a def te loolu tamit ñun ñi nga xam ne ñu toppatoo ak ak yelleefu doomu aadama ak liberté yi dinañ ko surveiller bu baax maa ngi leen di gërëm di leen sant. merci beaucoup. merci.